dalleen ak jàmm jamono ji xawma koy nelaw ba yandoor waaye du doon Ibrahima Ndiaye moom ñenn ci ay taalibey tiijaan yu dëkk ca Mboro ñoo ko menacé de mort maanaam ñoo bëgg a faat bakkanam ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddu yu ñaaw yu ñàkk teggin ci youtube bi jëmale ko ci ki fi nekkoon xalif général des tijaan Serigne Mansour Sy borom daara ji boobu boobule ojoon nag Ibrahima Ndiaye mi ngi ciy wax wax yu doy waar dem na sax ba naan Serigne Mansour Sy daa borom daara ji moo ko liggéeyoon bëggoon ko faat ginnaaw ba mu bëggee génn ci tarixa bi leen di bàyyi rek ngeen déglu audio kii di Ibrahima Ndiaye. bu yore eh, kéwél gi photo man ak kéwal gi ba ci di bi gën a ndaw yëpp laa boole woon wëre sama néeg ma bàyyi ba bëccëg ma daldi jël sama peel di gas ci kër sama papa di gas naan looy gas ma ni ceel ma gas ba pax mi xóot ma samp peel bi yéene ci sama xol ni pax mii de li ma bëgg a def ku tee ma def ko pax mi na nekk sa bàmmeel wala mu nekk sama bàmmeel bi ma duggee ni yót photo boobu mu ànd kéwél gi toj sànni ci pax mi nit ñi ni kar ni këpp ñii di yuuxu kii dof na ñu naan ay waa Ibrahima dof na mujj ma jël dem fa sama yaay di toog bu ma xotteeri ñuux ci taal bi ba photo yëpp jeex ah coow la takkar naase na ah, léegi nag ñu wax ko sëñ bi sëñ bi def délégation bi ñu defee délégation délégation bi ñëw bu délégation bi ñëwee ñu mu daal di ñëw sëñ baa ngi lay nuyu mi ngi wane kontaanteem ci yow wane ni dara amul te man xam naa loolu kon suñu benn mbokk ne quoi Ibrahima génn na ci daayira bi góor gi gi daal di arrière daal ni auzubillahi mina seytaan rajim ba sa yàgg mu daal di mu daal di siwaat daal ni ma yow yàlla da laa defal loo xamul mag ñi fi nekkoon ku nekk rëjul ni xale bi kay di ko yàlla defal mu ne ma yow ni nga mel ak sëñ bi ni nga mel ci eh, tarixa bii say bàyyi nga fekk say maam bëgg ko am mënuñu ko am sa suuru ñaan wér dit noonu say bàyyi ngi fekk say maam bëgg ko am mënuñu koo am bëgg ko am mënuñu koo am ba tax na kon continuer nga liggéey sëñ Babacar ma daal di koy puusaat kay mu ne ma ba kon doo ko jël ma ne ko duma ko jël mu ne ma lu tax doo ko jël ma ne ko li tax duma ko jël mu ne man ko dafa am yenn boo nga xam ni yàlla daf ma ko jox mm, ba ma mësëree pour ma yenu ko léegi nag yenuwuma ko woon ba pare jàpp ni dama ko yenu kon li paase yenuwuma ko loolu lay ricc waaye li ma jublu incha allah dama ko fas yéene yenu mu ni ma ah ma ne ko waaw mu ni ma kon nag yow déglu ma ba dénk la ma ne ko bismillah mu daal di tàllal juróomi baaraam yi banque baaraam bu ndaw bi daan ni ma tarixa seex bii ma ne ko mu ma boo ko jàppee ne ko ah mu jàpp ba dugal la àjjana ma ne ko ah ma tarixa seex bi ma ne ko ah mu ni ma boo ko bàyyi mu jàpp la ba dugal safara la ko seex waxee ma ne ko mu ni ma boo ko boo ko bàyyi boo boo boo ko jàppee mu jàpp ba dugal la àjjana boo ko boo ko boo ko bàyyi mu jàpp la ba dugal safara ma ne ko mooy naaj tarixa yonent bi alayhi salaam ah keroog nag la Ibrahima Ndiaye noppee am jàmm keroog la noppee am jàmm boroom xam-xam bu ñu xam ñëw na wax kenn ku nekk dara mujj jibar la jóg jógtee ak léegi sëñ bi menacé ma tëkku ma jibar bi mu njëkk a yebal ci man daf ma menacé dafa ñëw suñ kër ni ma ko noonu yow dellul ci li nga nekkoon parce que ñëpp la bëggoon hmm? ma ne ko nga bàyyi li nga nekki nii ma ne ko lu may bàyyi li may def santaan yàlla ku bi noon toom xaw ma ko xam naa ko maa ngi koy def li ma bàyyi tere yàlla ku bi noon toom xaw ma ko xam naa ko ma naa ko mu ni ma noon waxuma loolu te kooku dama ko ragal ci njibarga mu ni ma ko noon ba ma ne ko bayu ma ko tey bayu ma ko ëllëg mu ni ma xii xanaa da nga fàtte ne man ngay waxal ma ne ko hasbi allahu wa nihmal wakil ñu teg ci ay fan ñu ne ah bàyyil kii kay moom lee mu dee kii kay lee mu dee ba ñu tegee ay fan sa waay feebar ba ñu entré ma hôpital régional bu Thiès mennum sama yaay moom fa fekk tiim ma ndeysaan ci lal hôpital bi daal ni ma ay doom ay Ibrahima bàyyil xanaa xanaa bëggoo sa bakkan ay doom dellu ginnaaw ma yëkkati sama bopp daane ko yaay mu ne ah, ne ko man li ma gëm moo yàlla moo bind jaamam bi ñu wax feebar bind jaam bi ñu wax Ibrahima Ndiaye toog ba mu neex ko mu yëkkati jaam bi ñuy wax feebar teg ko jaam bi ñu wax Ibrahima Ndiaye ngir na toog ko moom dong laa gëm ni moom a jàpp di ko ñaan mu wéral ma su ma wéralee alhamdulilah su ma reet koy ñaan mu jéggal ma aywa muy wër di bàkku nag ñiy bàkkoo ba ma génnee hôpital bam mu ñaar fukki fan ak nangam moom itam jibar ba yàlla ne ko kaay jël sa wàll biir bi funki sumbaay muy waddaka dal ba faatu seex bi waaw fii moom dañu la dégg naan sëñ bi yebal sëñ bi yebal rek njaber yooyu ban sëñ moo ko daan yebal ci yow asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ boobu ma lay wax mooy sëñ Mansour nee la ni ma bëggee woon maanaam ci kaw suuf amul ku ma doon bëgg que ni ma ko bëggee dama doon wax ni man bu ma amee doom bu bu ma mësëree ba am soxna doom bu ma jëkk am muy góor yonent bi asam la koy tuddee keneen ku ca tegawaat ma tudde ko sëñ Mansour. est-ce que Ibrahima Ndiaye ànd na ak sagoom maanaam ndax Ibrahima Ndiaye mii doxul question boobu nag la ñëpp di laaj jamono jii bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci taalibe tijaan yi nag Ibrahima Ndiaye mii dara jotu ko lu dul réew ak bon ak bañ tarixa tijaan loolu rek moo tax mu yëkkati wax ju ñaaw ju ñàkk teggin ju bon ji teg ko ci deru ki fi nekkoon xalif général des tijaan sëriñ Mansour si borom daara ji mi nga xamante ni lu baax rek lañ ko xamee wax ji nag metti loolu communauté tijaan bi nga xamante ni ña nga foofee ca Mboro loolu waraloon sax ñu daal di organiser ab assemblée ngir lijjanti mbirum Ibrahima Ndiaye laataa ñuy xaar procureur muy autosaisiru bi am na koo xam ni wax na ci chaîne YouTube bi ñu tuddee ko alxuraan ak sunna rekk Sénégal TV ay wax yoo xam ni da koo jëmale di ŋàññ kii nga xam ni mooy feu sëñ Mansour si borom daara jëmm jooju dëkk Mboro ñu di ko wax Ibrahima Ndiaye mu ni woon moom jege woon na lool jege woon na lool Serigne Mansour si wante bi ñu gëstoo gëstu yi depuis 84 ba nëga ni xam nañu loolu dara lu ci dëgg amula fenn foo xam ni jege woon na fi sëñ Mansour ba sëñ Mansour di am lu mu koy digal ñu wax ni en 1958 léegi fa sëñ Mansour moom mu ñëwoon fii ci Mboro am fi ay suuf yor fi ay tool yaakaar naa ne ay la mag ñoo xam ni fekke nañ fi ku ci mel ni Alaaji Pape Kane mën nañoo seere yu mel noonu fi la nekk ci Mboro li fi liggéey ba yàlla def li ko dab dab ko mu jóge fi dem France en novembre deux mille dix neuf deux mille douze ba foofu la ko yàlla moomee le 7 décembre deux mille douze ñuy wax ni. kooku nga xam ni newoon na ni muy Ibrahima Ndiaye bokk na ci confrérie Tidiane wax nañu ni bi ñu defee ay gëstu waa fédération xam nañu loolu dara du ci dëgg ay sos rek la li nga xam ne waxoon na ko ne jébbalu na tamit sëriñ bi ñu ni loolu tamit gëstu nañ ko dara amu ci li mu ni woon ni bokkoon na ci ay ndaje ay association ba demoon sax di jiitee daayira tiijaan bi ñu demee gëstu nañ ko tamit xam ni loolu dara du ci dëgg moom nag moo jóg di wax ay wax yu tegginuwul ci confrérie tijaan boobu ba di ko wax jëmale ci kii nga xam ni mooy suñu kilifa gi fi bàyyi ko yàlla na yàlla yokk leeram muy sëñ suuf si borom daara loolu nag ñu jàppe ni ñu jàppe ni koo xam ni xa ñu ko jàppe ni koo xam ni ku xol bi xat la koo xam ni dafa en ci yoon wi nga xam ni moom la yoon wi di doxe yoon la confrérie tidiane di doxe fii ci Sénégal mu wax ni sëñ Mansour ci boppam dafay nekke woon ah man wax jooju parce que réew sax sama làmmiñ mais maa koy jégalu ci moom ak suñu sëriñ bi nekk suñu wet nee na sëñ Mansour dafay nekke woon lu dul it faat ay nit man tentative de meurtre loolu bi ko zaire yi gëstoo tamit xam nañu loolu dara amu ci xale boobu xamuñu lan moo ko dal ñu ni xañ na dafa dof wala xare fi xale la wala am ndox la loolu nag bi mu amee ñu gëstu ko muy loo xam ne lu jéggi dayu la njaboot gi yëg ko ñu laaj ne waaw nit nan lay xamee loolu ci kilifa gu mel noonu depuis 1984 nga toog ba jëmm jamono ji 2019 di ko doog a def ci ay audio di ko génne di ko publier di ko wax jëmale ci jëmm jooju Sëñ Mansour Sy borom daara loolu mu nekk loo xam ni kenn mënu koo teg ci ak gëm-gëm ci accusation yooyu yëpp mu def ñu wax ne leeru nañu ne Ibrahima Ndiaye moomu jàggati na charte charia ak sunna bi nga xam ni moom la wax ni moom lay defaan le en effet le prophète ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar ni tere na bépp jullit bu jël ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci mbokk jullitam rawatina koo xam ni génn na àdduna ñu ni fàttaliku sëñ Mansour si kenn amul sañ-sañ di ko fàttaliku man wax caa wax lu rafet nga ca war a wax mais wuroo caa wax lu ñaaw moom tamit ñu gëstu ni bi ñu defee suñuy gëstu ci wàllu loi ndax loolu moo tax ñu yóbbu mbir mi ci yoon wax nañu ni jalgati na loi yi réew mi parce que boo demee ci article 362 du code pénal dañoo wax ni kenn ak foo mënti bokk waroo mën a ŋàññi kenn walla ay nit ñu bari boo ko defee yoon war na la topp ba sanctionné la teg la ay daan bi loolu weesoo ci wax yu ñaaw yi moom Ibrahima Ndiaye moomu xamal nañ ni ba mu waxee loolu ci njabootu Mansour si ba léegi dafa mel ni léegi ci àdduna bi yépp ci réew mi ñépp la ko wasaare donc dafa atteindre à la paix publique te wax ju ñaaw yu mel noonu ñu xam ni tey bu ci ak dal amul woon ak kilifa yi liñ ci wax mënoon naa dem ba yëngal am réew ndax ku ci nekk mën ngaa jóg ne damay fajal sama bopp te loolu commencé woon na fee am yaakaar ne ay kilifa ñëw ci jóg ne ànd leen ak dal bu leen leen wax dara dinañ ko topp fi ko war a toppee ñu wax ni am nañu benn plainte boo xam ni déposé nañ ko le 6 décembre 2019 ci kanamu procureur république du tribunal grande instance de Thiès loola tamit yoon mi ngi ciy dox li mu ci war a dox mi ngi ci en cours nañ ko. menaces yi ak coow li li muy bëri bari taxul benn yoon ba Ibrahima Ndiaye daal di reculer moom sax mi ngi xamle ni yàlla daal lay topp ak sunnaam. mi bi ma tuddee ndeyam yàlla na ma yàlla loolu du jàmbaar du rek ci kattanu yàlla toroxal leen bañ ñu tot góor ga daal di ciy jóge nag daal di songu njibar ga ay wa dara mu dee benn maire daldi di déplacé ba ñëw génnee ba génne lafu sërëm bu ndaw bi mu jiitloo mu ni ma ba ñu maa jaay sama alal yépp ba bàyyi jaay sama beccu bii ngir nangamtaan la jaar fu bon ma ne ko maire yàgg nga ko def mais incha allah fii ngay doxe di ko def ba faw baa nga doxe fi bàyyi ko def ba faw maire bi déplacé dem ba biir Kajoor mu engagé fa ñaari jibar kenn ki da ko déplacé ñëw loose ko keneen ki des comme dafa bari ñu ko doon fekki kooku dafa yor oto day defi muy def mu ñëw dañ daan topp ci sama ginnaaw di tibb sama tànk bu ko defee ma ne gees duñ ma ko nëbb ma ne gees man leen ah bu fekkee lii ngeen bëgg de man ngeen ci am camion parce que Mboro ber beñ la ci lay dox aywa ñu dem daal di defar ñaari booba ñoom comme sëñ bi nee na kii moom nafaatu nafaatu rek aywa defar ñaari morceau yàpp togg ñaari morceau yàpp yoo xam ni benn bu ci nekk matul matul matul trois grammes ñu mu tuuti def ko njibar gu garaw andil ma bi ñu ndee sama xel mi xel xel mi ne ma boo ko lekkul dañ naan lekku ko ñu jox ma ma ne bismillah ni ko wëllum sex ñu joxal ma beneen ma ne bismillah ni ko wëllum sex ba ñu toogee ab diir jibar boobu ñu déplacé wu daa xëy jëli bagaasam daw maire ba ko engagé woon dafa dafa dafa mujj paralysé dafa xëy xëy paralysé ba 2001 la dee kilifa gi leen ko sañ mille 2001 boobu la feebar ba ñu yóbbu ko moom itam franche hmm? ginnaaw si gi moom itam sumbay laata moo dee dafa dafa dof doomam dof beneen keneen beneen jibar bi nga xam ne moo doon yorto bi fi mu toll nii dof la buy taxawaalu def taati neen jabar ya tas na kër ga tas na ci gàttal daal ñi ko engagé woon ñëpp fi ñu toll nii ñu ci baree bari ñu ngi ci biir suuf ak mujj dooy war loolu nag dug njàmbaar ndimbalu yàlla la dañ noon duma gudd fan kuñ noon doo gudd fan ba nga am doom maye say doom tey ñu sëy sa ñetti doom takk soxna ña ko doon wax suul nga leen alhamdulilah gund naa son làq juróom benn fukket ak nangam alhamdulilah hmm? lañ noon tarixa bi ku ko bàyyi torox ah sens contraire man ba ma ko bàyyee laa tedd parce que ba ma ko bàyyee ci laa xam dëgg dëgg kan mooy àqi borom bi subhanahu wa taala di ko jéem a joxe bi ma xàmme ba ma ko bàyyee dëgg ci laa xam kan mooy yonent bi alislam dëgg dëgg nag di ko roy yàlla dénk na ma fukki doom ak juróom-ñett may ñaan yàlla mu jëm kenam benn génn gi ci ay yonent wala saxa wala saxabiyaat tudde naa yonent bi alislam ñeenti doom te maa ngi ñaan yàlla mu jëmaat kena aywa samay doom takk nañuy soxna. samay doom ñi sama doom ubbi na daara alquran sama yeneen doom ñu ngi jàngale ngi ñaan ñëpp jaar ci alquran ak sunna kon man tarixa bi ba ma ko bàyyee ci la tedd kon may ñaax ñi nga xam ne dañ caa bokk te xamuñu mbooti ci biir maanaam képp ku ci dugg danañ la tiital danañ la njëbat nañ la def ne waaye nag wëkkirlul ci borom bi subhanahu wa Ibrahima Ndiaye dafa dof wala dafa réew lu mu ci mën di doon daal dinañ leen toppalaat mbir mi ba fu mu yem ndax ñi nga xamante ni ñoo di communauté Tidiane bi nekk ca Mboro jébbal nañ ab plainte procureur